chers téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu amaat métier contenté retrouver leen sur les antennes de la 7TV dans votre émission avocat l'émission qui traite les questions juridiques les cas mais aussi l'actualité de manière générale te nag ñu bëgg ñëwaat ci li nga xam ne mooy la loi d'amnistie bi nga xam ne le président de la république et son gouvernement ñoo ko initié pour apaiser li nga xam ne mooy le climat politique ak le climat social donc gis nañ sax les le les événements yi nga xam ne moo fi resa xew li nga xam ne mooy le cas Ousmane Sonko ak le cas Bassirou Diomaye Faye nga xam ne dañ leen dañ donc gis nañ euphorie bi nga xam ne moom moo am un peu ci li nga xam ne mooy la population sénégalaise mais la question bi nga xam ne moom la ñuy posé est-ce que mën nañu oublier lépp d'un coup malgré li nga xam ne moo fi am yëpp maanaam yi nga xam ne mooy Pape Ismaïla Dieng nekk un journaliste waaye itam nekk chargé de communication et de plaidoyer fële ci Afrique TV Pape Ismaïla ñu ngi lay nuyu di la dalal ci émission avocat. maa yi nga xam ne moom laa campé un peu décor ci wàllum loi d'amnistie bi nga xam ne moom lañ jël pour apaiser li nga xam ne mooy le climat politique et social gis nañu. après li nga xam ne mooy libération Ousmane Sonko ak ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye mën nañ dire que l' espace politique est peu pacifié mais est ce que loolu doy na pour pacifier li nga xam ne tamit mooy l' espace social ak le climat social bi nga xam ne moo fi nekk. waaw euh, balaa may dugg ci question dangeen may may ma euh, quand même masawu tuuti Maimouna Ndour fay ak euh, li ko jotee daal ci fan yi ñu weesu. Mhm. di ñaan mu gëj fii di ko ñaanal aussi wér gu yaram yàlla dolli ko dolli ko wér yokk kattan ba mu gaaw a dellusiwaat ci liggéey bi mhm. pour tontu nag ci sa question. man li may njëkk wax mooy loi d'amnistie bi suñu xoolee c'était pas une demande sociale du nit ñi ñoo ko laajoon président de la ci boppam moo toog ne moom moo décidé def ko tàggu ci kenn yéegale ci kenn et que majorité bi mu am assemblée soutenir ko voté loi bi donc bu ñu xoolee si loolu mooy moom mooy wane ni du nit ñi ñoo toog demande ne nañ leen voté loi d'amnistie moom moo ko jël décision boppam la léegi nag est-ce que apaiser na lépp man gëmuma ni loi d'amnistie dafay ñëw pour apaiser lépp lépp loi d'amnistie d'abord code bii mooy bi njëkk am Sénégal bii mooy fukkeel biñ ci voté depuis 1960 entre am na yi nga xam ne ordonnance la woon mooy gouvernement bi moo ko jëloon parce que à l'époque assemblée nationale toogul woon am na yi nga xam ne tamit loi la bu ñu voté assemblée boo xoolee euh, ci bu ñu jëlee boo jëlee euh, loi d'amnistie lan lay wax maanaam dañuy jël euh, ci ab day diir ñu ne tel date ba date sàngam lépp lu ñu fi defoon si lu jëm lu ñaawteef lu ñu mën a wooye crime wala délit maanaam yu ñu war a yóbbu enquête ba war ci àtte nit tribunal daan ko wala wax ne def mu dara yi nga xam ni dañ koy dañ koy wut fuñ te taqale maanaam bi yoon mën nañu wax ne su nekkee événement yi xewoon ci Casamance am na ñaari loi d'amnistie ci Casamance mhm. wala événement yu amoon ci Tivaouane Tivaouane ci année soixante yi amoon na événement yu fa amoon yu indiwoon euh, kii ba ba mu jotoon bañ ci dotoon def loi d'amnistie aussi donc mën na nekk bu ñu waxee date bi wax béréb bi mu xewee mhm. wala aussi ñu wax date bi wax ne kii yi euh, nu mu tudd euh, ñaawteef yi nga xam ni dañ ko lié maanaam dafa jëm ci politique wala dafa jëm ci économie wala dafa jëm ci lii euh, boo seetee loi bi ni ñu ko bindee mook loi Ezzan ñoo xaw a niru ni ñu leen bindee parce que dañoo wax ne tel dayo bii nii date bii ba date bii mm-hmm. lépp lu luñ ci def lu jëm ci wàllu politique kii nañ ko donc fii aussi loo loolu la c'est la c'est la même chose donc boo seetee loolu bu ko nit ñi laajul ñi nga xam ni dañ leen tooñ mm-hmm. ñi ci yàqule yàqule maanaam yàq seen oto yàqu na si seen kër yàqu na si ak ñi nga xam ni par exemple dañ ci ñàkk seen bakken seen mbokk ñàkk si seen bakken ñooñu ñëpp loi d'amnistie bi day ñëw wax ni yéen moom kenn defu leen dara amatul dara ki ñu doon topp pour loolu sax kenn toppatu leen même si ci biir loi bi dégg naa ne député dañ doon jéem a def ne dañoo war a créer benn fonds d'indemnisation pour indemniser ñooñu mais loi d'amnistie loolu lay indi parce que am na ñi xam ne dañ leen tooñ am dañoo yàqule ci mbir wi am na ñu ci ñàkk seen bakken te ñooñu ñëpp du mujjee fenn mais gis nañ un peu bi nga xam ne moom moo am après la libération de Ousmane Sonko ak nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye ñi ngi bëgg a fàtte li nga xam ne moom moo fi moom moo fi xewoon def mel ni la libération de Ousmane Sonko ak de Bassirou Diomaye fay am na leneen lu mu lu mu def aussi ci li nga xam ne mooy la tête des des Sénégal wala on peut comprendre que c'est vraiment une partie tout simplement waaw c'est une partie je pense par que seen libération tax nit ñi fàtte lu fi xewoon nit ñi dañoo kontaan parce que dañ jàpp ni dañ leen waroon libéré ñu si bari dañ jàpp ni ñooñu def ñu dara dañ leen tëjoon si si si si naka sudul noonu boo c'était Bassirou Diomaye Faye si post bu mu defoon sur Facebook la Ousmane Sonko affaire téléphone bi mu këfoon la après procureur yokk yokk yeneen si dossier bi mu waxoon depuis mars 2021 ak yooyu donc nit ñi dañ jàppoon nii ñu si bari dañu jàppoon nii loolu noonu euh, warul woon tax ñu tëj leen kaso man mi bokk naa si ñu jàpp ni loolu gëmuma ne woon ni doyoon na assez pour ñu tëj leen. c'est très léger pour ñu jàpp si c'était c'était donc euh, entre le fait que nit ñu kontaan si ñu libéré leen ak nit ñi ànd ci loi d'amnistie bi ba pour ne nañu fàtte lépp. pour man euh, y' a y' a une grande différence. nit ñu kontaan nañu si li leen li leen libéré parce que comme ni ñu libéré keroog mais nit ñi jàpp nañ ni loi d' amnistie bi warul dem man ci ñu may gis boog ak ñu may dégg. warul demee noonu rek am na sax ñuy wax ne est ce que euh, bu ñu ñëwee bu ñeneen ñëwee mënuñu abroger loi d' amnistie bi. dund ko parce que aussi yoo xam ne ñu ngi. waaw ñu ngi wax ne bu ñu ñëwee ñoom dañ koy abroger donc. affaire bi foofu lay nekk euh, ci euh, niveau boobu noonu pour man dañu war a séparer le fait que nit ñi kontaan dem jubilé buntu këram gunge ko Cap Manuel ba këram. Mm-hmm. seen droit la seen leader la nit ku ñu am cofeel la si moom. ñu dem euh, def loolu teeroo ko noonu mais taxawul tamit loolu signifiéwul ne nit ñi d'accord nañ ci loi bi wala fàtte nañ lépp lu fi amoon. fàtte nañ lépp lu fi amoon tey jii ci loolu laay laay ñëwaat cest ak li fi jot a taxaw tey jii nii ñu jël li nga xam ne mooy loi d'amnistie pour amnistie li nga xam ne moom mooy moom mooy les faits y a certains candidats qui disent que après mën nañ ko mën nañ ko abréger mais je me demande est que le coup n'est pas n'est pas déjà déjà parti c'est-à-dire damay réfléchir à ko duñ xoolaat c'est-à-dire nekkul benn subterfuge boo xam ne à chaque fois donc bu ñu soxlawee régler un ñu jël ko donc est-ce que waruñu ko gën a encadrer parce que vraiment dafay indi li nga xam ne moom la ñuy wër maanaam la régime de de l'impunité aussi. waaw xam nga euh, comme maa ngi wax sànq ne bii mooy fukkeelu loi d'amnistie en 64 ans cela veut dire que dafay mel ni boo jëlee en moyenne même si du rythme boobu lay demee chaque 6 ans Sénégal am benn loi d'amnistie. Euh, ça veut dire que li ñu war a fàtt li ñu li ñu ni ñi dañ ko war a fàtte wala dañ ko war a baale ci Sénégal bari na bari na ba mu deela leen chaque fois noonu ñuy def noonu il faut que donc ñu am beneen mécanisme de prévention et de résolution yi yi ñu war a amnistier li ñu war a amnistier mm-hmm. parce que bu dee loi Ezzan dafa ñëw ñu ne amnistier nañu lépp lu li nga xam ne dafa xewoon jëm ci politique entre mille premier janvier 1983 ba premier janvier ba 31 décembre 2004 muy 21 ans. Mm-hmm. ça veut dire que li fa xewoon li ñoom ñoom ñi ko doon def ñoom ñi voté loi bi xam nañu li xewoon foofu bari na torop torop torop te graawoon na rey nañ ci juge am na yi nga xam ni kenn ba tey kenn résoudre ko am na yi nga xam ni sax nit ñi fàtte nañ ko ay wax affaire voiture piège yi explosé woon à Dakar fii daa ay 88 89 yooyu noonu sax nit ñi fàtte woon donc il faut que ñu taxaw def taxaw taxaw seetlu xool ne lan moo war a tax kon chaque fois ñu war a am loi d'amnistie et que donc pour éviter yegg ci li ñu war a indi loi d'amnistie ñu créer des mécanismes de prévention tey boo seetloo dans la loi si gars yi wax nañu oui politiciens yi lay profiter wala yooyu non mais policiers yu ñu filmé woon ñu tiré ci nit ñi ñooñu tam loi d'amnistie daf leen di couvrir mhm. est-ce que donc jarul tamit ñu toog mhm. xoolaat naka la force de défense et de sécurité di defee maintien de l'ordre mhm. ba bañ a yegg ci loolu est-ce que tey par exemple dañ ko yàgg wax manifestation pacifique bu ñu encadré du am problème sultan bu amee problème mooy manifeste nit ñi bëgg manifester ñu interdire leen est-ce que mënuñu indi dootu mécanismes ki fonk que ni du ñu yegg ci situation boobu noonu boo war a soxla loi d'amnistie euh, damay fàttali ne euh, boo jëlee ay euh, dans d'autres pays am nañu ay mécanismes amoon nañu ay mécanismes yu ñu tegoon mm-hmm. comme ay comité euh, commission vérité réconciliation wala yooyu bi ñu ko defee Afrique du Sud la première com la première commission bi ñu fàtt bi may fàttaliku man Afrique du Sud la woon. Mhm. ab euh, ak euh, Nelson Mandela dañ ko tuddoon comité vérité et réconciliation maanaam nit ñi dañuy ñëw toog. nga ñëw janoo la janoo ki nga jàpp ni moo la def nga ne ko mhm. yow yaa ma def lii nii nii nii nii mhm. kooku ne la man def ma wala man maa def lii lii lii moo taxoon ma def ko ainsi suite su nekkee yenn kaay yi am na yenn cas yi nga xam dañuy ne dafa gannaaw trop quand même ñu jugé kooku noonu am na nga xam ne dañuy wax ñaari nit bu ñu baal naa la nga mu affaire ñu def waxtaane ko mhm. biñ ko defee jéem ko dans d'autres pays gars yi dañoo réunir ne dafa am lu ñu fàtte commission vérité réconciliation d'accord mais justice après am yenn pays yu def commission vérité justice réconciliation mhm. ñu demaat ba ci digg bi ñu ne ñu ñëwaat ñu ne am na lu ñu fàttewaat encore commission bu ñu kiiwee ba pare ñi ñu tooñ lan lañ leen di def dans d' autres pays ñu def commission vérité réconciliation réparation. boo jëlee Gambie seen commission bi c' était TRRC en anglais. Mm -hmm. c' était Truth. Euh, Reparation and Reconciliation Commission. commission mm. commission vérité réparation et réconciliation. parce que dañ ni balaa quand même ngeen ngeen di wax nit ñi nañu ko bu dañ toog wax ñu tooñ ñu ne leen yéen a tooñ. d' abord ba kooku nangu ne maa tooñ après ñu ne bu ngeen di juboo ngeen tegante loxo juboo. Mhm. wala ngeen waxtaane ko wala bu ñu waree dàmp kenn ñu dàmp ko mais il faut que nit ñi toog ñaari nit bu ñu jotee doo ñëw rek waa ay eh, nuyoo leen jubóo leen da toog nga déglu ne xew daa ne saa waay yaa tooñ mm-hmm. loolu bu mu la dalati yow it moo la tooñ waa d'accord léegi nu ñuy def mm-hmm. da koy baal wala ni ñuy def ñu waxtaane ko ñu ko mais fii loi d'amnistie nag le problème bi problème bi muy am mooy mm-hmm. puisque assemblée moo koy voté dañuy jàpp ni c'est l'expression de la volonté populaire parce que assemblée moo koy voté du comme grâce nga xam ni président mooy toog tëju mm-hmm. signé décret grâce yi ku ko neex bon selon ku ko neex selon ni ko loi bi encadré parce que am na quelques encadrements yu si am mais dem loi d'amnistie dañuy jàpp ni c'est l'expression de la volonté populaire parce que assemblée nationale. dañuy jàpp ne assemblée nationale moom moo am. te ñun ñooñu ñu représenter le peuple voilà ñun lañ fa lay représenter. mais je pense que ni tant que yaa ngi koy yaa ngi koy wax aussi yaa ngi naan loi d'amnistie aussi boo xoolee Sénégal je pense qu'on est à notre sixième. loi dixième dixième loi loi d'amnistie mais non est-ce que mi ngi réparer li nga xam ne moom mooy le préjudice c'est-à-dire commission yi nga wax nii est-ce que moom gënu sax li nga xam ne moom mooy loi d'amnistie parce que depuis lors on a dix lois d'amnistie alors que ba tey fee yi ñu ngi fi donc problème yi ñu ngi fi action yi nga xam ne war nañ ko réprimer ñu ngi fi donc boo xoolee échappatoire la c'est-à-dire damay laajtaat beneen question c'est-à-dire on parle aussi de loi d'amnistie pour ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaaw ñaawte fi mais est-ce que l'État aussi mënu ko utiliser parce qu'il est aussi responsable aussi dans aussi. oui état bi parce que loi d'amnistie euh, la plupart des lois d'amnistie yi am Sénégal c'est l'exécutif moo ko décidé le président de la République. il y a eu la loi Ezzan officiellement c'est un député moo ko porté le député euh, feu euh, Isidore Ezzan euh, moo tax ñu jox ko tur bi loi Ezzan mais tout le monde savait à l'époque que c'était une loi qui venait la présidence ñu jël ko jox ko benn député ne ko porté ko mhm. euh, manœuvre la woon donc li muy indi mooy lan c'est que euh, état bi moo am mécanisme mën ko utiliser le président de la république ci boppam bu ko neexee ñu voté même bu ko député proposé loi mën na décider man du ma ko promulguer et puis mu nekk un truc ñu dem dans une procédure assemblée truc parce que y a toute une procédure pour forcer président à promulguer ko wala affaire yooyu na donc chaque fois bu amee moom c'est que loxo état bi mu ngi ci état bi ànd na si. après parfois dafay nekk par exemple boo jëlee les deux lois d'amnistie sur la Casamance accord de paix yu seen état wu Sénégal ak MFDC doon signé ci biir accord yi ñu wax ne dañuy def loi d'amnistie pour que nit ñi baalante parce que voilà dañ jàppoon ni boo fa naroon nekk di poursuivre di jéem a ak kii da ngay yokk coow li. day bëggoon mu réglé vraiment. d'autant plus que sànq yaa ngi koy wax si par état parce faits yi nga xam ne amnistié nañ ko je pense qu'il y a eu aussi plus les crimes de sang il y a aussi des crimes économiques parce que dégg nañ scandale financier yu bëri bëri yoo xam ne vraiment mi ngi ci li nga xam ne moom mooy ci période bi ni mel. waaw parce que li ñu bindee loi bi man ci texte bi ma jotoon en tout cas bi ma lire. Mhm. su dee amul changement dañu wax ne les crimes délits ayant des motivations politiques. politique. Mhm. foofu la piège bi nekk lan mooy motivation politique est-ce que quelqu'un nit mën na détourner xaalis ba pare daan ne bon sama sama détournement bi motivation politique la woon dama ko détourner pour financer benn meeting wala pour ah. xam donc foofu la piège bi nekk ba ñu mën ci dugal lépp luy romb mhm. voilà ci biir texte bi aussi mhm. il y a quelque part où on permet à des victimes de contester que un crime puisse wala un délit puisse rentrer dans la loi de truc mën nañu wax ni non non euh, damay joxe exemple euh, ma la ñu yóbbu ma tribunal ma ni motivation politique donc loi d'amnistie da koy couvrir nga ni déedéet kii maak moom dañoo jote woon bërëb sàngam affaire yooyu moo tax mu ñëw toj sama oto mm-hmm. loolu bokkul ak politique maag moom mosuñu jote politique moom xamul sax ban parti laa nekk. connaissant connaissant la mentalité des des des sénégalais nga xam ne problème mu justice je que dañoo am benn barrière entre la justice pour régler les problèmes donc jàpp naa ne vraiment la plupart des sénégalais na ñu bàyyi mu sedd à partir de cette loi dañuy jàpp ne vraiment ça vaut plus. ça vaut plus waaw l'importance de le faire aussi. loolu loolu mën na am mën na am si ñaar c'est-à-dire mooy ñenn duñu xam procédure yi ñu war a dem. Mm-hmm. ñeneen ñi dañuy wax ne bof puisque vouloir bi am na nañu baale ñu noom ñu nangu baale ci seen kii ñeneen ñi mën nañu même bu ñu xamee procédure bi mais dañuy ragal affaire bi yàgg parce que les procédures de justice parfois day yàgg. Mhm. day yàgg yàgg y a des procédures de justice yi nga xam ne tey boo demee ñi ko doon kii sax nekkatuñ fi. yàlla jël na leen. Mhm. donc yooyu noonu yëpp mën na tax nit ñi peut-être découragé am na nag ñi nga xam ni xam nañu te am nañu jot bi pour def am nañ aussi moyens yi pour def donc ça dépendra tout juste de nit ki dossier fan la ko toll ak xam-xam bi mu am ci dossier bi fan la si toll mm-hmm. ak euh, peut-être ay avocat am lan lañ koy conseiller bu nekkoon am na ay avocat lan lañ koy conseiller mu def wala yooyu noonu mm-hmm. wala moom ci boppam mu décider ne damay baale. tout simplement bàyyi naa ko tamit loolu tamit droit wu nit ki la bu ko neexee. Mhm, droit wu nit ki bu ko neexee. Mm. tey jii bu ñu jëlaatee loi si parce que après damay damay raisonner ba tey chantier booy xool bu baax a baax sa sa dafay ñëw vraiment donc ci intéret plus des politiciens. que li nga xam ne moom mooy moom mooy la moom mooy la population parce que booy xool exactement li nga xam ne moom lañu ko moom lañu ko tënkee c'est-à-dire on n'a pas pris en charge li nga xam ne moom mooy la population parce que comme li ñu ko waxee c'est-à-dire des crimes politiques mais d'autant plus que vraiment les intérêts des politiciens vraiment encore une fois sont mis en avant au détriment des intérêts de la population aussi. waaw parce que de toute façon euh, loi d'amnistie moom intérêt wu ñaar wala ñett nit lay gérer. Mhm. ki def ak ki ko defloo. ak ki profité xëy na. de cette situation de la situation. ñi def tey jii ñan lañu jàpp ñi jàppoon ñëpp dugg ñu prison ñu ne bu ñu demee ba wax ne motivé les crimes et à motivation politique c'est que ñii politique la intéressé. que mu nekk militant de base bi que mu nekk chef de parti donc toujours ñoom la intéressé. si bind bi lépp loi. mu nekk loi d'amnistie leneen li ci gën a important ci ban façon lañ ko bindee ban fànn lañ ko bindee. ñan lan lañ si bind si boobu la ñuy xam ñan la ñan ñoo ci profité ak ñan ñoo ci profité wu mais bu ñu xasee ba bind dans une loi d'amnistie que ni ce les crimes et yi nga xam ni action yi c'était à sur des motivations politiques. Mm-hmm. kuy làmb ji ku dem ca làmb ji bokkuloo ci. dëgg la. ñun journalistes yi bokkuñu ci. <laughs> donc donc ñoom la intéressé ñoom ñoo ciy gagné ñoom ñooy toog décider ne dañ koy def. encore une fois. Mm-hmm. ñoom ñooy toog nag je ne suis pas en dañ ko négocier wala xamuma ci dara fekkewu ma ko mm-hmm. mais. ki ko décidé c' est un politique muy président la moom moo taxaw ci kanamu sénégalais yi. Mhm. te waxul ne dama négocier gars yi ba ñu d' nañ def mu dafa ni man maa jël sama décision bu bopp. te d' autant plus xam na ne am na majorité parlementaire. am na majorité parlementaire waxul ne dama négocier gars yi ba ñu ànd ci. waxul ne maa kii maag diw waxtaan waxtaan naa ceeg diw wala waxtaanuma ceeg diw dafa ni lii ba ne ko ba jour dialogue bi ba muy wax. dafa ni dem d'amnistie si moom bokkul ci dialogue bi maa jël sama décision bopp def ko. tout yéen li ngeen di waxtaane mooy kañ la ñuy voté ak lan mooy xew après le deux loolu laa leen loolu laa leen fi woowee. Mm-hmm. waxi loi d'amnistie sant santuma ko kenn. loolu maa ko jël sama décision boobu donc à partir de sa moment moom d'abord mi jël décision bi il en profite énormément parce que nee na dafa bëgg buy jóge Sénégal mu bàyyi fi jàmm wala est que loolu moo fi bàyyi jàmm xamuma mm-hmm. je ne suis pas persuadé de ça mm-hmm. bëgg après aussi am na ñeneen ñu ciy profité comme ni ñu libéré oui dañ ciy profité d'une manière ou d'une autre parce que nga nekk ci kaso bi bu amee loi bu lay génne doo toog ne non du génn nañu bëgguma génn. de toute façon même boo bëggul génn dañ lay génne de force une fois ñu décidé na da génn kaso bi. dañuy dañuy génn même sax dina ma jaaxal aussi parce que après day anuwaat beneen problème c'est problème de cohérence aussi de la part commencé waat leen nga commencé waat leen génne c'est-à-dire avant même la loi dañoo gisoon le président de la république commencé woon di di di libérer quelques éléments yoo xam ne a jàppoon ne moom mooy les manifestations donc est-ce que mën nañ jàpp ne aussi lay moom lay liggéey est-ce que ça manque pas aussi de cohérence aussi il un gros manque de cohérence dans le sens où d'abord euh, comme ni nga waxee mënuñu di traquer ay personnes depuis 2021 et puis xëy suba rek ne nañu ne nañu effacé lépp mhm. sur du jour au woote woo waxtaan amul kenn ku ñëw ne la kii kenn ñaanoo la njëkk yow yaa toog yow yaa ko waxal sa bopp yaa toog ne dama koy def loolu d'abord c'est un c'est un problème ensuite bu ñu mënee pour des personnes yi nga xam ne accusation yi ñu tegoon seen kaw kawoon dafa grave ah. terrorisme affaire yooyu ñu mën a xëy suba noonu bàyyi leen c'est que a un gros problème si mi ñu qualifié woon fee li ñu leen jàppee woon. waaw d'abord légèreté à la base. parce que su nekkee mun nañu tey libérer un terroriste bon je ne dis pas ñu ñun jàppoon ay terroriste la. mais c'est le procureur moo bind dans un dossier moom juge d'instruction ñu àndi terrorisme ku ñu accusé de terrorisme ñu xëy suba rek mën nga bàyyi noonu ça veut dire que soit état au Sénégal. Mm-hmm. gëm na ni yow doo terroriste. waaw ou bien jàpp na ni terrorisme grave comme mën nañu ko bàyyi noonu. wala manipulation la aussi à la base tout simplement. kan moo manipuler kan c'est ça la question. kon dans ce cas waaw loolu c'est une question. si su état Sénégal ma dañ woon ba gëmloo ma nit ñi ay terroristes lañ man dama jaaxal. ak tous les services d'enquête yi mu am d'autant que ay services enquête état bi ñoo jàpp ñooñu nekk ay terroristes lañ parce que du man maa ñëw woote ne waa ji terroriste la kaay police gendarmerie ñoo jàpp ñooñu nee nañu enquête nañ ci ñooñu ba gis ñu dañoo doon préparer ay actes terroristes ba jël dossier bi jox ko procureur procureur jël ko jox ko juge d'instruction ñii ñu àtte leen ñii àtte guñ leen. Mhm. donc buñ ci tollee foofu c'est que soit li ñu mën a wooye terrorisme Sénégal yomb na trop. c'est très léger. Mhm. wala état bu Sénégal gëm na ni ñii duñu ay terroriste dañ leen ko takkaloon rek. te bu dañ leen ko bi ñoom moom la woon parce que moom moo leen jàppoon. moom moo leen jàpp d'abord. voilà kon jàpp na nit. li ñuy wax terrorisme garaawul. parce que après la population ñu ngi ko doon ñu ngi ci suuf c'est-à-dire après avoir dit qu'on a attrapé des terroristes jàpp nañ leen pour un peu vraiment assainir donc la la, la population andiwaat li nga xam ne moom mooy moom mooy sécurité bi du jour au lendemain nga bàyyiwaat ce genre de personnes ñu commencé waat di di vadrouiller c'est-à-dire est-ce que dinañ jugee ci situation de base c'est-à-dire sécurité lañ doon ut mais à la fin c'est-à-dire est-ce que ñu ngi ci sécurité bataille. considère que ñooñu du ñu ay terroristes du tout ou bien l' état considère que terrorisme grave mën naa ko gérer beneen kii bi may am mooy da ngay jël ñu ne moom état wu Sénégal moo jàpp ñooñu teg leen ay accusation kii leen affaire yooyu man on m'a raconté des choses jaar bu ko fi doon nettali émission bi duñ fi jóge mm-hmm. ou c' était vraiment extraordinaire façon bi ñu doon jëlee nit ñi ñëw teg la ne la terroriste affaire yooyu noonu mm-hmm. on m'a <laughs> raconté benn cas bu drôle ñu ne booy bi dañ ko indi waa ji dañ ko yóbbu ba ba gendarmerie tegal ko cocktail molotov ci kanam moom ne ko yow yaa ko yoroon moom mu yaakaar ne butéelu saafara la parce que xamul lan la. mu ne leen waaw maa ko yoroon. <laughs> donc yooyu noonu yëpp bu amee. ensuite état président la république di woote apaisement. dafa am yi nga xam ni kuy diriger bu ko wootee. c'est parce que dafay avouer échec am quelque part. parce que l'apaisement de l'espace politique de la vie sociale sénégalaise moom la war. moom lañ jël jox ko autant de moyens ne ko fexeel ba nit ñi dëkk ci jàmm nekk ci jàmm mën a doxee nii mën a def lii mën a def lii bis bu toogee ba ni jàmm jeex na fi ba xaaral ma def lii pour que jàmm ñëwaat. Mhm. c'est moom moo war a toog ne nit ñi maa waroon assurer seen jàmm échoué na tout mais yow président de la république du mës a du mës a du mës nangu loolu. même bu ko waxul c'est-à-dire que c'est ça que ça signifie même bu ko waxul. on peut interpréter. non c'est ça la réalité c'est-à-dire que y a des ni ñuy wax en français les mots ont un sens moo bu nekk dafa am lu muy signifier bis boo toogee ba ni damay jël telle chose pour apaiser c'est que tu su tu, di dis que paix amatu fi. Ah. foog ñu delloosi ko. et qui nous a mis parce que apaiser mooy lan fu jàmm amul nga indi fa jàmm. Ah. moo waroon fexe ba jàmm du fi jug c'est-à-dire kan moo waroon fexe ba à tout moment sénégalais yi mën a toog mën a waxtaane un problème bu am. c'est le rôle de l'État. et de celui qu'on appelle gardien de la constitution clé de voûte des institutions euh, tous les titres yi ñu ko mën a jox parce que quoi qu'on puisse dire que le procureur ait pu li mu def yëpp jàpp autant su ko neexul woon dool du am. dans tous les cas mën nañ jàpp ne comme li nga wax c'est-à-dire c'est la c'est la triste réalité loo xam ne je pense que kenn mënu ko kenn mënu ko nii on va terminer avec je pense que ñi nga xam ne mooy les grands gagnants ci li nga xam ne moom mooy amnistie bi je pense que c'est Pastef mais aussi c'est Bassirou Diomaye Faye nga xam ne moom c'était un candidat mais aussi Ousmane Ousmane Sonko je pense que ce sont les grands gagnants de cette de cette loi d'amnistie non pas ñoom kese les grands gagnants ce sont ceux qui ont commis des actes graves qui auraient pu yóbbu leen devant un juge ñu juger leen c'est-à-dire les policiers qui ont tiré sur des populations sont les grands gagnants de ce truc les ministres qui ont donné des ordres et qui ont couvert les actes de ces policiers-là sont les grands gagnants de cette situation il faut pas que ñu déplacer problème bi ailleurs mm-hmm. ensuite Bassirou Diomaye Faye parce que dans l'affaire l'affaire Sweet Beauté bokkul ci loi d'amnistie bi normalement mhm. parce que c'est une affaire non et qui date d'avant le premier mars c'est à dire que le premier mars on peut dire le ah, parce que moom il a à ce jour quatre do il avait quatre dossiers au tribunal disons on peut dire parce que il a fait un rabat sur le demandé un rabat d'arrêt sur le sur sur le quatre sur l'affaire Sweet Beauté en tant que tel bi muy dem jour au tribunal jàpp nañ ko pour euh, si lañ ko yóbbu gendarmerie pour euh, atteinte à la sûreté de l'État mmh. affaire mmh. en tout le blabla mmh. il y a l'affaire contre avec Mame Mbaye Niang Ouais. L'affaire de diffamation. Diffamation, Bob, il a demandé un rabat mais on considère que le jugement est définitif. Et il y a l'affaire du téléphone volé et tout le, tout le truc. Mais téléphone les chefs, arraché les, les Voilà. Donc, affaire boobu noonu je pense que ça tombe sous le coup de la loi moo tax ñu libéré parce que loolu moo ko téyewoon en prison c'était pas les autres mm-hmm. l'affaire de appel à l'insurrection c'était au mois de mars boobu ça peut tomber sous la loi mais l'affaire Sweet Beauté date d'avant la loi je pense que naru ci boobu. mais boobu dañoo nekk situation de de de de justement le problème mooy vu qu'il a demandé à ce que le il a écrit pour demander à ce que le le, le procès soit refait. Le procès soit refait, c'est qu'on risque d'aller vers un nouveau procès vers, dans cette affaire. Vers un nouveau, vers un nouveau protège. Mais je pense que actuellement, Agni, Agni Langue Bemel, je, je, pense que ça va être très très difficile pour nous dans cette situation. On va terminer un peu parce que tant que nous impartirons, tirons, dire, vraiment, amnesty def nañ ko y a eu des canons y et beaucoup de beaucoup de pardons tey ci la société civile lan lay ñaax li nga xam ne mooy les candidats ou bien ki nga xam ne moom dara nekk la futur président de la République c'est-à-dire abroger cette loi wala wala gëmm rek ñu ñu ñu reconstruire li nga xam ne mooy le peuple sénégalais. alors abroger cette loi pour man c'est c'est c'est pas la meilleure idée qui soit. parce que bis boo ko commencé di nga quelqu'un va demander pourquoi dañu abroger toutes les dix lois d'amnistie fi amoon pourquoi ñuy tànn loi bi kese mm-hmm. man c'est position si on doit commencer par abroger une loi d'amnistie nañ ko def pour tout pour toutes les lois d'amnistie mm-hmm. bien que yenaa yi nga xam ne même bu ñu ko defee on reviendra pas juger les gens parce que ñenn ñi dee ñu si ñu ko defoon nekkatuñ fi mm-hmm. wala bu ñu fi nekkee tam nekk je comprendrai pas que ñu def ko uniquement pour cette loi là bañ ko def pour les autres lois d'amnistie yi fi jaar c'est euh, la première des choses euh, la deuxième chose la société civile si je parle au nom d'activistes et autres qu'est-ce demande c'est pas forcément l'abrogation de la loi mmh. mais c'est de créer les conditions pour que ñu bañati soxla une loi d'amnistie rappel mmh. effectivement créer les conditions c'est quoi c'est d'assurer que impunité situation d'impunité du am mm-hmm. c' est d' assurer que ku def ñu la identifier tout de suite ñu teg la daan ñu la war a daan parce que kes ki qui fait que nit ñi di indi loi d'amnistie souvent c' est que des faits dañuy compiler wu di compiler wu une fois bu ñu yeggee ba benn moment jaar day bëri trop ci loxo nit ñi ñu ne nañ ko bàyyi noonu. c' est de créer les conditions pour que mu bañ a am et bu amee ñu def réparation y a ki ça du ñu soxla loi d'amnistie c' est tout ce demande ñu. tout ce que, tout ce que, vous, tout ce que vous demandez, c'est tout ce que la société civile demande. Et je pense que la population aussi va demander la même chose parce que vraiment les pertes, les dégâts vraiment humains, matériels ont été vraiment nombreux. Et je pense que Sénégalais ñoo ci ñoo a ñàkk donc loi d'amnistie bi vraiment ñeneen lay gën a servir que li nga xam ne moom mooy la population sénégalaise Pape Ismaïla ñu ngi lay remercier di la jaajëfal jox la kàddu gi nga def seen dernier yëpp yàlla na nekk luy jëriñ nit ñi su amee njumte ñu ngi ciy jéggalu nit ñi xam bon ay nit rek la ñu matuñu aussi. merci beaucoup Pape Ismaïla on était aujourd'hui avec Pape Ismaïla Dieng nga xam ne c' est un membre de Africtivisme moom li nga xam ne mooy chargé de communication et de plaidoyer donc de cette organisation merci beaucoup Pape Ismaïla tey ñu doon waxtaanee ci li nga xam ne mooy loi d'amnistie vraiment li nga xam ne moom la fi andi ci li nga xam ne mooy conséquence mais aussi ci nga xam ne moom moo ci nara topp yëpp ñu ngi lay remercier remercier aussi nos téléspectateurs di leen jox dig daje incha allah lundi prochain ñu ñëwaat encore seen beneen numéro avocat